ne sangu li koy waral jàngoon nañu li si aju jàngoon ni kii <clears throat> fa lay see sangu ak lay see di sangu tey nag ñëw di jànge euh, buntu bi nga xam ne dalay jàngal mooy farataay sangu tamit dana la jàngal sunna yi te ko tamit dana la jàngal ngëneel yi naka noonu tamit dana la jàngal képp koo xamante ni am na loo si fàttee yëpp dana la ko jàngal moo tax ma ne fas lu lii ab fasila la kon génn si beneen wax di duggaat si beneen wax <clears throat> mu ne faraidul xusli farataay sangu yi si mooy aniyatu mu mooy yéene ànda shuruu yi si ba muy tàmbali mooy ba muy sóobu wal fawru ak méngale jëf ji wa dalku ak ràgg wala umumu ak matale nee <clears throat> farataay sangu yi si njëkk moom mooy mu yéene nit ki dafa war a yéene waaye fa leen bu demee ba yàq zakara bi foofu lay yéenee bu commencé foofu lay foofu lay yéenee ko noonu tamit na maam na ménga jë maam bu paree si benn cër rek na demaat si beneen cër bu si beneen cër na demaat si beneen cër naka noonu tamit ak ràgg maam buy sotti ndox bi naka sotti ànd ak ràgg waaye bu sottee ndox bi noonu rek kon baa kooku na jàpp ne amul sangu naka noonu tamit kon waaye ràgg bi nag nit ki jàpp ni daal bay rag fépp la war a rag ruq-ruqaat yu nekk si yaram bi yëpp poqtaan yi wala yu mel ni yooyu ruq-ruqaat yooyu yëpp paxu bakkan yi yëpp da koy war a ragg ko doon tamit bu dee ragg ginnaaw day jëf si moom nga xamante ni loxo yi mën na faa bañ a jot kon baa dafay jël benn morceau wala sarbet yu mel noonu daal di koy tooyal bu ko tooyalee def ko ci ginnaaw ngi di ko di ragg maanaam bu dee mënu ko mu wax jabaram wala euh, sax jaamam mu daal di koy ragal naka noonu tamit wala umumu ak matale mu ne wa sunanuhu sunnaya wasul yadayni moom raxas ñaari loxo yelal kuwayni jëm ba kal wudu comme wal mu ak galax niku wal istinshaaku surax niku wal istinshaaru ak fiiru wa xasli simaaxil uznayni ak raxas bën noppi waye moom as suqbatu moom mooy benn ad daaqilatu bu nekk si biir fi raasi mu jëm si bopp bi ne waa ma safhatu uzni waaye waaye bagaanu bagaanu nopp bi te mooy si kaw si kaw nopp bi si kaw yooyu noonu foofu fa yajibu dana war xaslu zahiri raxas si biti wa batiniha ak si biiram nee na nag moom mooy mu raxas euh, buy raxas ñaari buy raxas ñaari loxo yi ba si tëkkanjare yi loolu si la bokk sunna sang la na ko noonu tamit mu galax ndiku sorax ndiku fiiriw euh, raxas ban ban noppi Euh, ak raxas mbaggaañ nopp ci kaw noonu foofu yëpp mu raxas ko loolu da kay war da kay kon yooyu ñooy yooyu ñooy sunna yi mu ne wa fadailuhu nga nee li nag euh, loolu nag bu dee si bu dee si bu si sangu la mu raxas mbaggaañ nopp ci kaw nopp yi foofu yooyu yëpp farata la waaye bu dee si biir bën bën nopp bi foofu sunna la bu dee si njàpp nag ku ni nga jànge woon raxas nopp bi yëpp kon bu waa foofu sunna la mu ne wa fadailuhu ngeneeli albidayatu tàmbalima bi xasli najasati si raxas sobe bi ngeneeli bi si njëkk moom mooy maam ni bi commencé sangu mu raxas sobe bi fi taq sobe yëpp mu daal di koy raxas ndax bu si ba mu ni bu génnee mën naa mu taq fenn bu dee dafa moo xam mën naa taq si tànk yi wala mu li ëpp nag mën day takk si jumbax bi ba si bëti oom côté yooyu waaw foofu moo tax ñun la buy sangu na fa raxas wala bu dee tamit dafa takk feneen tamit mën naa takk feneen fépp foo xamante ni daal fa takk sobe rek moo xam si tànk yi la wala si mbagg yi fu mu mën ta takk rek sobe bu fa takkee waaw foofu lay dem mu raxas ko su ko raxasee pare nag su ma zakaru toog mu raxas zakara bi su paree foofu raxas fi takk sobe ba pare moo xam jumbax ba si bëti oom yi si mbagg yi la wala si tànk yi la fu mu mënti doon bu raxasee sobe bu fa nekk pare la lay su ma zakaru toog mu raxas zakara bi bi raxas zakar bi nag waxoon naa la jamono jooju lay yéene mu ne fa yéen wi yéene àndoo fa moom waaw buy raxas zakar bi jamono jooju noonu foofu lay foofu lay yéene su ma ada lu duy topp ciri njàpp yi maratan maratan benn benn topp nag mu daal di euh, euh, mu daal di def ciri njàpp yi benn benn maanaam maanaam mu jàpp benn benn buy jàpp euh, benn benn xam doon jàpp bu doon bu doon jàpp julli yooyu bu dee du sang farata foofu ñett yoon lay raxas waaye wax naa yeneen ñaar yi si yëpp loolu ngeneen la waxoon nañ la woon na yi si topp noonu bu dee cër bu njëkk bi ba mu ko setut kon baa ñeereel mooy remplacer nekk farata waaye yeneen si des sunna la yi si toppaat waxoon nañu la woon na kii la ngeneen la waaye bii nag bii nag euh, benn yoon kese ngay raxas ngay raxas ngay raxas sa cëru njàpp yi cëru njàpp yi benn yoon kese nga koy raxas su loolu su summa di jasadihi topp mu commencé lu gën a kawe si lu gën a kawe si yaram bi maanaam si muy commencé si gën a si yaram bi si kaw noonu bopp bi yaram bi foofu bu paree mu door si deero teg tànk yi loolu nag comme misaal comme ni kii bu doon dafay jàpp boo waxoon loolu rek kon ba kooku mën na ñëw mu daal di raxas loxo yi raxas ñaari loxo yi waaye foofu di nga wax noonu waaye dafay xaaj yaram bi ñaari xaaj comme diggante euh, diggante ñaari bakkan yi ak ñaari bët yi bët yi benn côté bi lay raxas côté boobu yëpp bu ko xaajee raxas si ginnaawam bi fépp bu ko raxasee ba si ba si bëti oom yi mu taxaw dama raxasaat si kaw feneen fi ba si bëti oom yi mu taxaw kon ba foofu gis nga ne raxas na si kaw ba pare léegi su paree nag mu door see teg ci suuf maanaam mu raxas euh, mu raxas mu raxas bëti oom ba ci suuf bu nday joor ba pare mu teg si càmmooy <coughs> <coughs> mu ne wa tasliisu ak ñett ñettal xaslu rasi raxas bopp bi naka noonu tamit bu pare si jàpp benn benn ba pare waa dafay dafay ñett ñettal bopp bi mu daal di jël ndox bu jëlee ndox sotti ko jonñ ko ci diggante karaw yi yëpp ndax waxoon nañ ne suufu karaw bu nekk day am janaaba kon baa foofu yëpp mu daal di kay ñett ñettal daal di koy raxas buy sotti ndox bi nag bu sottee euh, bu mu jëlee daal di sotti noonu ndax loolu mën na kaa andil feebar yooyu. mun bu ko jëlee mën na kaa jël mu daal di koy uh, sotti si loxoy tooy yi ba mu tooy mu daal di koy dugal daal di joññ daal di joññ bopp bi yëpp di mu shaq jasadi yi ak jiital wàllu yaram bi al ayman yi baykat ak ndeyjoor naka noonu tamit bu dafay xaaj yaram bi ñaari xaaj na commencé ndeyjoor bu commencé ndeyjoor ba pare door see teg càmmooy bu commencé ndeyjoor dem ba si bëti oom yi bu demee ba si bëti oom mu taxaw mu jël càmmooy dem ba si bëti oom raxas ginnaaw gi fépp bu eh, raxas ñaari loxo yi bu paree nag mu raxas eh, bëti oom yi ba ci suuf bu ndeyjoor ba pare door see teg càmmooy wa taqlilul maa yi ak néewal ndox mi alal a'daa si kaw cër yi naka noonu tamit mu néewal ndox mi si kaw cër yi waaye nag eh, cër yi nag dafa am yoo xamante ni ñoo xamante ni seen cër yi dafa nooy day neex ndox bi dafay dafay dafay neex a dafay neex a tooy foofu kon boobaa ñooñu mu jël loo xamante ni dana ko doy dana ko doy mu raxas mu sangoo si loo xam ndox boo xam ne doy na ko loo xamante ni bu ko jëlee mu sangoo ko dana ko doy mu si yokk leneen eh, loolu lañuy bañ waaye eh, naka noonu tamit bu dee koo xamante ni maam cëram dafa woo boob kon baa kooku mën na jël li nga xamante ni rek doy na ko saa si yokk lu gën a bëri eh, kon yooyu ñooy yi nga xamante ni moom mooy moom mooy moom mooy ngëneel yi léegi nag mu lay jàngal koo xamante ni doon sang farata ba pare mu daal di si fàtte dara jàpp ni daal ni ki kuy sang farata bu ñëwee bu commencé Euh, dafay ñëw mu raxas fi nga xamante ni moom moo takk sobe si moom bu fi nga xamante ni moom moo takk sobe si moom ba pare euh, bu comment euh, bu paree mu daal di dem si zakare bi bu raxasee zakare bi ba pare mu daal di mu daal di jàpp benn benn jàpp benn ba pare mu ñett ñettal bopp bi xaaj yaram bi ñaari xaaj raxas côté ndeyjoor bu ko raxasee côté ndeyjoor ba si bëti omi yi mu daal di jël càmmooy ba si bëti oom yi su paree mu raxas tànk ndeyjoor bëti omi yi si ba si suuf si tànk ndeyjoor bu paree mu daal di siy teg càmmooy waaye waaye nag bu doon nag eh, buy jàpp nag foofu buy buy eh, buy buy sangu farata nag wax naa wax naa ne la faw mu faaw mu mu koy ràgg mu koy ànd ak mu koy ragg buy wax naa la waxoon naa la barab xamante ni foofu da koy ràgg bu doon nag dafay sangu nit ki bu sangoo ba pare bu sangoo farata ba pare rek mën naa dem julli comme que rax na ci njàpp yi rek kon ba kooku mën naa dem julli bi demee julli dana am julli waaye nag bu doon nag comme moom dafa togle si biir sangu yi comme mu dem bu dee dafa togle foo xamante ni du si cëru njàpp yi comme ba muy raxas awra bi mu yéene di raxas awra bi foofu la tojlee tojlee foofu mën naa continuer bu continuer raxas cëru njàpp yëpp dem continuer euh, dem dem julli kon baa kooku am na julli dara nekk si amaa nag bu dee nag dafa euh, bu dee nag dafa dafa dem ba si cëru njàpp yi mu daal di fay euh, tojle kon baa kooku nag kon na jàpp ne am na sangu rek waaye balaa moo julliwaat faaw mu dem jàpp <coughs> mu ne waman na si képp ku fàtte lu ma atan mooy ab digg aw udwan wala cër min xuslihi ci sangu baa dara dafay gaaw ilaa xaslihi jëm si raxas ko xina tazakkaru jamono gu mu fàttali ko walaw ba'da shahrin dont gannaaw weer la wa mu baamu ma salla lu mu julli woon qablahu njëkk loolu wa in aqarawu nem yéexee na ko baada zikri gannaaw bu ko ba tala yàkko na xuslu sangom fa in kaan nem nekk na fii aada il wudu si cëru njàpp wa saadafahu wa mu dajale ko xaslum wudu yi mu rax xaslul yi ak njàpp yi na ko nee mooy sangu ba pare mu daal di fàtte ab mooy ab wala ab cër cër nag moo gën a bari ab digg mu daal di koy fàtte ci sangu bi kon baa kooku bu ko fàttalikoo rek dafa war a dem dafa war a dem dafa war a dem raxas ko bu ko raxasee bu doon julli woon na ba pare nag dafay baamtuwaat julli bu dee julli wutoon mu dem julli bu ko même bu dee da kaa fàttaliku sax lu yàgg comme mu fàttalikoo gannaaw weer même bu dee gannaaw weer la ko fàttaliku sax léegi nag bu daal di fàttaloo nag de moom kat am na benn cër bu mu fa bàyyoon wala ab digg bu mu bàyyoon si euh, si ba muy ba muy sangu farata kon ba kooku dafay demaat mu daal di raxas mu daal di raxas foofu bu dee julli woon na si jamono yëpp julli si yim julli si weer bi yëpp da kay baamtuwaat waaye nag bu dee nag da fàttaliku waaye moom moo sàggan mu fàttaliku ba pare di euh, di tarre kon ba bu dee da kon ba kooku dafay sangu bi si boobu moom mooy yàqu dafay dem sanguwaat amaa nag bu dee nag moom ba mu koy fàttaliku daf kaa fekk si ngànd comme mu fekk ko si avion wala mu fekk ko si oto wala mu fekk ko euh, muy jàng wala mu fekk ko wala mu fekk ko si euh, wala mu fekk ko si classe muy jàng yooyu noonu kon bu baax foofu loolu euh, dañ kay day baay ba pare rek mu daal di dem raxas ko waaye nag bu dee koo xamante nii nag amul benn ngànt moom fàttaliku ne léegi nekk si kër gi dara dara jot ko dara defu dara mu daal di koy fàttaliku daal di toog noonu kon baa kooku bu yéexi kon baa kooku dafay baamtuwaat li nga xamante ni moom mooy moom mooy moom mooy sangu da tamit nit ki <clears throat> bu doon dafa dafa dafa dafa dafa dafa doon sangu farale léegi nag mu daal di dem ba si mu daal di fàtte ab cër mu daal di si cëru njàpp yi comme si cëru njàpp yi la fàtte léegi nag mu daal di euh, mu daal di dem ba mu paree sangoo pare mu daal di dem julli ba mu jullee ba pare nag ba mu jullee ba pare nag mu mu nekkaat si mu jàpp waat julli kon boo kooku mu daal di fàttali ko ne moom kat ba mu doon sangu am na benn cër si cëru njàpp yi bu mu bàyyoon kon boo kooku day day bamtu julli gi nga xamante ni julli na ko ba mu sangoo ba pare waaye julli gi nga xamante ni ba mu jàppoo la ko jullee kon baa julli googu du ko bamtu ndax day naan jàpp gi nga xamante ni jàpp na ko foofu jàpp googu doy na ko waaye waaye waaye cër googu na kenn du ko wax naan ko da koy raxasaat ndax cër googu noonu euh, ndax cër goog noonu ba muy jàpp boobu raxas na ko jàpp gi mu jàpp noonu doy na ko léegi nag génn si bunt boobu ñëw si ko benn bunt boo xam ne day jàngale si koo xamante ni nit bu yoree janaaba yi nga xamante ni moom lañ koy tere mu ne fasluñ li ab fasale la kon génn si beneen wax di duggaat si beneen wax mu ne laa yi du dagan lil junubi ñeel ku yore janaaba duxulul masjidi dugg jàkka wala qiraati alquran jàng saageen bu jàng alquran illal ayata lu may aaya wa naxwiha yu mel ni aaya li ngir muslu wa naxwi ak yu mel ni muslu nee na koo xamante ni dafa yore janaaba kon bu waa kooku dañ koy tere mu dugg jàkka konoon tamit du jàng alquran lu may mu jàng ab aaya aaya boo xamante ni comme da ngay musloo mu dem bay tëdd buy léemu mu jàng ayatul si wala yu mel noonu wala sax mu gis ab mu gis ñaari nit yuy xeex mu mu bëgg leen a waar mu daal di mu daal di jàng alxuraan ngir yedd leen wala wala kenn feebar ñëw si moom mu am ay goo xam ne bu ko jàngee dana ko musal si loolu mu daal di kay wax kon ba loolu dara nekk si waaye li nga koy tere moom mooy ko mu jël alxuraan bi di ko nafar noonu di ko jàng waaye may na ko mu jàng si comme ay yoo xamante ni da koy muslu waaye mel ni muslu mel ni muslu nag boo ko déggee moom mooy ay waaraate wala yu mel yu mel ni yooyu mu ne wala ay juzu du dagan li ma ki nga xam ne laa yaqdiru atanul alal maa il baaridi si ndox bu sedd ay mu dikkal ko zawjatuhu jabaram xata yuidda bata mu am jumtukaay nee na nit ki bu dee moom dafa ragal ndox bu sedd kon ba kooku ay yaatiyee mu dikkee ko lay firi ah, bu dee nit ki bu dee nit ah, dafa dafa ragal ndox bu sedd comme nga xamante ni bu dee dafa sëy jabaram ba pare doo du mën a am kat du du dootu mën a day ragal ndox bu sedd nga xam ne du mën a sangu kon ba kooku dañ koy tere mu daal di seeg jabaram si guddi googu ndax comme que bu dee seew foofu kon baa foofu du fa mën a sangu te boobaa te boobaa bu xëy suba du mën a julli fajar baa kooku dañ ko kay dañ ko kay tere waaye nag bu dee nag moom wóoroon bu dee suy de foofu dana njaaloo wala sax mu ragal jabar ji daal di dem njaaloo kon ba kooku may nañ ko mu daal di seeg moom bu seeg moom nag bu fajar jotee kon baa kooku dañ naan ko mu tiim daal di julli bu pare ba jamono ji nga xamante ni dana fa mën a sangu mu daal di fay sangu illaa an yaxtalima lu mooy mu gént nag fala shi di dara li waaye bu dee koo xamante ni moom dafa dafa gént koo xamante ni bàyyi la jabaram léegi mu daal di gént bu géntee mu daal di gént génnee ma ni kon bu waa kooku te foofu kooku dafa ragal ndox bu sedd kon bu waa kooku bu dee fajar dafa jot may ne nga mu tiim mu daal di dem di dem julli ba waxtu bi nga xamante ni dana si mën a sangu waxtu ba xam ne mën na fay sangu mu daal di fay sangu daal di daal di julli lu tax ñu ne ko comme bu dee euh, bu dee dafa dem ba xamante dafay njaaloo mee ko mu sangul ndax boo seetloo njaaloo moom moo gën a diis moom moo gën a diis mu daal di euh, euh, boo seetloo kon njaaloo moo gën a diis mu daal di mu mu sem sëy jabaram bu xëyee mu daal di dem tiim moom moo gën a diis moom moo tax ñu ne ko ñu ne ko nga dem seeg jabaram bu seeg jabar moom moo gën moom moo gën nga xamante ne xëy rek tiim waaye njaalo moom moo gën a diis loolu moo tax ñu tere ko ko ndax boo gisee lu diis ak lu oyof lu oyof ngay jël kon xamante ni maam dafa ragal njaalo ñu ne ko mu seeg jabaram mu xëy fayar wala julli ñi ne ko mu dem tiim buy tiim foofu nag lu muy yéene moom mooy yéene yëkkati toj bu mag